salaamaaleykum mbokk yi ONG Autre Africa mu ngi nuyu presse bi parce que ñoom ñooy sunu ay partenaires première à chaque fois buñ ñu leen soxlawee da ngeen di ñëw ànd ak ñun ci li ñu nekk di def euh, conseil bi dañu waxtaan ne ginnaaw lépp lu touché sénégalais de l'extérieur dañ si taxaw wax si lu amee luñ si war a dox ñu jug dox ko fan yi dëkk bi dafa jaxasoo fan yi dëkk bi dafa nekk si métit te si pàcc boobu mu am pàcc bu am solo mu laal doomu sénégalais yi nekk bitim réew ñu am si naqar dëgg wax nañu fu ñu toll nii fukk ak juróom benn doomu sénégalais yu ñu faat ci manifestation yi am ñuy jaale seen ay mbokk ñun Otra Africa bi ñu waxtaanee ndëgam tuuru Otra Africa loolu la mooy wane beneen xar kanamu Afrique bu dul ak xar kanam boo xam ne day takk deret di yàq ginnaaw yeneen continent yi loolu la ñu xaar ci Afrique ñun waruñu leen woon may image boobu te tey image boobu ñëw na senegal su ñu gisee secretaire général des Nations Unies di bind di naqarlu ci Sénégal di wane tiitaangeem ci Sénégal loolu lu ñuy bett la te lu wax dëgg yàlla lu ñu tiis la parce que Sénégal bi mu amee indépendance am avant muy am indépendance am bi mu amee indépendance am ba tey nii Sénégal dafa mës a nekk réew boo xam ne dañ ko naw réew boo xam ne dañ ko sopp réew boo xam ne dañ ko respecté kon tey institution internationale muy secrétaire général ONU muy OUA muy CEDEAO CEDEAO seen CEDEAO seen communiqué bi sax xamuñu kan moo ko signé si ban bànqaas moo ko signé communiqué nañu rek tellement que cofeel bi ñu am si Sénégal mënuñu wax kat la donc kooku du image bu rafet du image bu baax pour Sénégal li fi am nag ñun ñëpp xam nañ ko. topp nañ si di si wax wax nañ si waxaat si waaye dëkk bu nekk dafa am yoon am na lu fi am ñu dem si benn ñu dem si benn procès yoon wax na lim siy wax yoon nag mooy àddu ku ñu tooñ ak ku ñu tooñul te yoon suy waxal askan bi lay waxal askan bi lay àtte amaana ni ni mu àttee askan bi gis na ci seen bopp walla gisuñu ci seen bopp waaye lu bari wax nañ ko ci te ñu war a mën a nangu loolu nangu bi tamit mooy ni ko yoon am na ay pàcc yoo xam ne to am nañ ko te ñu war ko mën a topp ñu war a mën a jox cër fi mbaxane nekkee benn parce que mooy ëttu àttekaay yi mu neex mu naqari banqaas yooyu am na si réew mi te am na noo ko mën a toppee topp ko ba ëllëg ci biir nga gis li la neex walla li la doy tàkk-tàkk yi nekk ci biir réew mi ñuy yàq di taal di àddu kalpe alalu jàmbur yi damay ne loolu rafetul nañ ko bàyyi senegal méritewul loolu loolu du image u Sénégal ñun autre Africa dañu mës a jaay image bu baaxu Afrique afriku jàmm afriku salaam Sénégal loolu lañ ko xamee li tax nag ñu yëkkati sunu kàddu mooy ni que yéen ak presse bi ak mbokk yi dangeen ngeen mës a ànd ak ñun boot ñu ñuy woote ak ak yelleefu doomu senegaal yi nekk bitim réew ñu mës ci taxaw di ne nañu fexe li àddu seen wàllum kayit nañ leen jàppale pour ñuy jot seen kayit nu mu gën a baaxee nu mu gën a gaawee doomu Sénégal foo munti nekk ci àdduna bi nga mën a jot sa kayit ci jàmm ak salaam ak ni mu gën a gaawee ñu topp ci wax ci jooy ci dal ci kaw nguur gi dal ci kaw état bi pour loolu mën a am nañu dématérialiser système bi ba nga xam ne doomu Sénégal foo nekkee bitim réew wàllum kayit du la sonal yàgg nañ ko ñaxtu yàgg nañ si wax yàgg nañ si dox fan yi ñu mujj ñu ngi ci doon gis taw féex ñu ngi ci doon gis mu xaw a tane démb li ñu gis ci consulat wu bi nekk Milan ñu gis également ko euh, New York vraiment rafetul lu ñuy dàq la li ñuy dàq la ndaxte bu ñu demee yàq loolu tes foofu ku xam wàllum état civil léeg-léeg di nga nekk bitim réew boo soxlee sa extrait de naissance boo soxlee sa certificat de mariage boo soxlee kayit bu jëm ci état civil di nga toog weer ba juróomi weer pour nga mën ko jot di jaabante ci consulat yi ba sonn pour mën ko jot ndax système bi naqar boobu rek doy na tey bu ñu demee ba loolu ñuy tas loolu di ko yàq di ko lakk ëllëg ci biir boo soxlee kayit boobu nooy def donc loolu rafetul fichier d'identification boobu ñi nekk bitim réew bu ñu lakkee seen di d'identification neewuma élection dina am ak du am waaye élection bu naree am circonscription boobu fan lañu aw pour mën identifier jox ñooñu seen carte électeur ndëgëm yàqa nañu fichier d'identité bi donc mën nañu ñaxtu mën nañu wax sunu naqar ànd nañu si lu ñuy def ku am lu la naqari da koy génnee danga koy wax waaye bul yàq jumtukaay yi nga xam ne ñoo lay sàmm ñoo lay aar te muy alalu Sénégal dama bëgg sama mbokk ñi nga xam ne bitim réew la ñu nekk nañu ànd ak dal si wàllum démocratie ñaa ñaari fukki at yi mujj doomu Sénégal yi nekk bitim réew dañu participer lu rëy lu fës lu leer si démocratie bi dañ ko participer mu nekk lu wóor parce que dañu nekk ay jàmbaar nekk au premier plan di woo seen mbokk fii di sensibiliser di taxaw di si dox ba fépp fu ñu munti nekk xam nañu sénégalais de l'extérieur yi partie importante lañu tey si système électoralu Sénégal donc ñooñu am nañu voix tey pour mën a joxe seen kàddu si réew mi si wàllum politique waaye ngalla nañ ko def ak xel mu sell ngalla nañ ko def ak dal ngalla nañ ko def ak waxtaan ma ne amul lépp lu ñu mënul def te teguñu ci waxtaan damay faral di joxe exemple Nelson Mandela bi ANC duggee ci clandestinité di taal di def li ñuy def Nelson Mandela ci prison bi la doon toog di négocier ak Frédéric de Klerk ba ñu mujj fi mu mujj tey exemple la su Soundiata Keita suma Kanté l'histoire dama ni waxtaan mënul ñàkk duma ma naa nag nii ak nii lañuy waxtaane mais taal bi yàq bi saaga yi xaste yi nañu xool nuñ koy defee su ma mbokk waa bitim réew gis nañu si am na si ñoo xam ne du ñun ñooy àtte liberté d'expression dafa am ku nekk nag waxal ni nga wax ni nga ko bëggee askan bi mooy àtte waaye nañu bàyyi xel ni ko ñun ñu ngi bitim réew ñu ngi ci biir dëkk bi sunu ay mbokk ñu ngi ci biir dëkk bi sunu alal mu ngi ci biir dëkk bi sunu ay waajur ñu ngi ci biir dëkk bi sunu ay doom ñu ngi ci biir dëkk bi ñun ñu toog fi ñu nekk te jàngat yi ñu def mooy ni que ñi xam bitim réew dëgg xam nañu am na ñoo xam ne ñu ngi wax na Sénégal tàkk na Sénégal boy na Sénégal lii amaana ni seen xel ak seen xalaat yëpp mooy nan lañu ñu Sénégal si dëkk boo xam ne dëkku difficulté la ndax ñetti pàcc yi moo koy waral Sénégal bu nekkee si dëkku difficulté ñoom dina leen arranger parce que fu ñu nekk dañu fa am ay problème judiciaire suñ leen waree delloo Sénégal dootuñu leen delloo kon ñooñu seen intérêt la pour Sénégal tàkk parce que Sénégal bu tàkkee dëkk yooyu ñu nekk duñ leen mën a delloo am na si ñoo xam ne dañu am ay difficulté sociale ñooñu tey seen référence yëpp mooy ni que ñoom lu ñuy dund na ko Sénégal dund am na ñoo xam ne dañu am ay difficulté administrative donc dañu mën a càppandiku si difficulté Sénégal yooyu pour ne ah Sénégal dafa am difficulté donc améliorer leen sama situation parce que li ma doon am Sénégal laa koy jëlee am na si loo xam ne dafa ñuul si soow bi ñun nag Otra Africa et ñun man particulièrement lenn liñ ciy mën a am mooy wax li nga xam ne moo si nekk pour intérêt wu Sénégal et dëgg rek moo ñu tax a jug ku nekk bitim réew nga bëgg a taal Sénégal nga yaakaar ni que fi nga nekk si jàmm nga nekk waxoo dëgg nekkoo si dëgg te xam nga ni loolu du wéy nañu dànkaafu ñooñu nañ leen dànkaafu ñu waxante dëgg ku nekk nag tu es libre de communiquer ni nga bëggee. ku nekk tu es libre nga wax li ngay wax waaye bés bu Sénégal tàkkee du la ci nañu waxante dëkk te ñu xoolante suñu biir xamante na nañu déglu nañu discours yi discours yi bëri na si ay manipulation ay fen ay sos ay tuumal da si bëri trop te ñi si ëpp ñu koy def bitim réew lañu nekk di fenal ay doomu aadama di sosal ay doomu aadama di tuumal ay doomu aadama si ñu nekk bitim réew dimbaliwuñ ñu ñun mi nekk fii si dëkk bi parce que yéen presse bi xam ngeen li fi nekk ak li fi nekkul su loolu weesoo su loolu weesoo suñu xoolee tey boo leen ñu buggee dimbali ñoo leen bëggee dimbali ñi nekk fii si dëkk bi mais boo leen joxee information boo xam ne dëgguwul boo leen joxee information boo xam ne information truquée la boo leen joxee information boo xam ne information manipulée mais yaa ngeen di nax seen bopp nax nit yi parce que dëgg bi bu feeñee dañoo xam ne ñoom ñoo nekkul woon ci dëgg te gor boo gisee ni que li nga nekk du dëgg da ngay dellu gannaaw donc bu ñuy joxe nañu joxe information yu dëgg bañ nit bu mu tax nga koy sosal di ko fenal di ko tuumal te xeex bi ñuy xeex mën nañ ko xeex ak intelligence ñun autre Africa dañu mës a dàq troisième mandat si Afrique wax nañ ko sa Guinée bi ñu ko waree wax wax nañ ko si Côte d'Ivoire bi ñu ko waree wax wax nañ ko sa Mali bi ñu ko waree wax fépp fu ñu ko war a waxee dañ koy wax mais nan lañ koy waxee dañ koy wax si jàmm dañ koy wax si dal dañ koy wax si xel mu sell dañ ciy dux di respecté tamit ñi ñu ko war a waxal jox leen seen wàccuwaay jox leen seen kii Sénégal dafa am ay institution yoo xam ne ñun askanu Sénégal ñoo leen ko dénk askanu Sénégal moo dënk ñooñu li ñuy dënk suñu demee ba beew ba fàtte ni que askanu Sénégal moo leen ko jox Sénégal am na luy àtte fi mbaxane xam ne nekkee doone benn mu ngi fi te mu ngi fonctionné jaar na yoon walla jaarul yoon askan bi la koy defal su loolu weesoo ku fi bëgg a nekk candidat président conseil constitutionnel moo koy validé parce que loolu mooy li am mu neex mu naqari conseil constitutionnel ñu far walla ñu farul foofu nga jëm boo jugee foofu boo jugee foofu ñu validé ko nga baax nga bon boo forcé comme ni ko fi ñenn defee woon dina fi am benn ngoon boo xam ne am na ñu ko fi defoon presque bi dinañu ñëw bu timis jotee ñuy wàññi su boobaa dëgg bi dañu xam fu mu féete te nag askan bi ñu ngi bàyyi xel ci loolu fii Sénégal kenn mënutu fi sàcc ay élection sàcc élection dafa jeex Sénégal journalistes si ñu ngi toog di seetaan journaliste waa réew mi journaliste waa bitim réew te observateurs yi ñu ngi fi te adduna tamit mu ngi seetaan donc am na lenn loo xam ne mu ngi fi may terminer pour wax ak njiitu réew mi moom mooy kilifa gi waxu troisième mandat bi mu ngi taal dëkk bi.